asalaamaaleykum mbokk yi fi nekk nii ñu ngi fii ci école Dior euh, seet ci suñu benn naataango koo xam ne citoyen la di wuyoo si turu Mor Kane ñu koy laaj euh, sëñ Mor ñu di la laaj rek démb yëngu-yëngu yi nga xam ne moom moo xew ci réew mi nan nga ko dundee ak nan nga koy gisee. man lool. lool sama parabis lépp la ñu rayaxe ba parabise bu wàcc carrément ba waa xëy mu mel noonu. waaw ah. métti na sama yoon nekkul. waaw loolu doy na waar. vraiment. Hmm. vraiment yàqal nañ ma loo xam daal. Ah. bon lu ma métti la. Ah. lu ma naqarul tam. ah waaye nag mënoo ci dara nga bàyyi leen ak yàlla ndax yàlla moo man a fa jaam. moo mën a fa jaam mais li ñu def moom teguñu ko fenn. doy na waar oto bu gaaree jëful dem ma nga toog fa mu toog nekk këram di moytu nga ñëw rayaxe oto mi yàqaate ko complètement xam nga loolu lu metti la. xaw ma nag instant def xaw ma ñoo def. Ah, en nag métti na métti na daal. gisoon ni tamit euh, loolu sàgganteeg réew mi la wala bandi yi nekk ci dëkk bi ñoo koy ñoo ñoo bëgg a yàq dëkk bi wala nu mu demee noonu loolu noo ko gisee. waaw action bi li mu demee li mu yëkkatee mooy Euh, euh, borom réew mi ci la bokk ndax ni mu ci bokkee mooy normalement am na loo xam bu ko defee war na ko saytu ci saytu boo xamante ne bii xool ñi muy dugal ci ci ay ci ci ci loolu ndax am na mbir mi mën a sa ngoo faj leneen mbirul nii hmm. ndax li ko mën a faje mooy kenn ku nekk na def na na na na takk masque hmm. docteur euh, fonk li li docteur bi wax hmm. képp koo xam ne defoo ko nag man bu ma ko deful lu ma jàll bu ëllëgee man loolu moo gën leer loolu moo gën lu wóor ngay eh, bàyyi nit ñi rajaxe te kuy jóg guddi munoo xam kan la munoo xam kan la te ñoom itam ñi nga xam ne ensemble eh, défense la ñu man mais mënuñoo xam ñu ñëw ci seen kaw mm-hmm. kon affaire bi noonu la war a demee normalement dund bi daal mooy ñu gën a xool mesures yi daal nañ ko war a defal mais nii mel na ci loolu loolu a defal ah dëgg la sëñ Mor ñu lay jaajëfal Euh, sit bu ñuy wax euh, Salam Vision moo ñëwoon doo leen defal micro trottoir euh, xool rek waa école Dior li nga xam ni moom la dundee yëngu-yëngu yi nga xam ne nii moo amoon démb waaw sëñ moo a ngi noonu moom yàqule na yàqu-yàqu yi wax naa ci xalaatam léegi nag ñu ngi bëgg nag di xool nag yeneen ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko ñoo ko fekkewoon woon biig Euh, moom jot na cee yàqule otoom otoom a ngi ne lee xam yàqal nañ ko dem nañ xamul kat moo ko yàq loolu métti na ci moom met na ci ñëpp te nii mu yàqoo xam naa ni ni mu yàqulee noonu la ñëpp yàqulee waaw cent cinquante mille la pare-brise am di xam nga nekk nii ñu yàq doy na waar kon su ma sañoon état bi nga xam ne nii moom moo ne ci réew mi mu dimbali nit ñi ci wàll yu demee noonu xew-xew yu demee noonu bu ko defee mu mën a wàññeeku ci réew mi ndax yàqu-yàqkat moom bu baree moom dana indi ay gàllankoor yu méttee métti ñu ngi leen di jaajëfal